Chez le showroom, Biz Collection, Lumière du Sénégal, Leral TV, Huile J'adore, AMD Corporate. Namour. waaw bébé Diop. sa lampe bi nag. waaye benn marchand ambulant moom ko jaay vite fait. lii de bu doxul nga waaru. toogal foofu noonu. lii maa la koy branchel daalal la ah. mu changé ampoule bi ah. non gars yi sérieux wuñu quoi on dafa yomb trop lii nii Sénégal weesu ay pendule hublot lanterne classique wala bluetooth couleur boo bëgg forme boo taamu pour jox sa intérieur wala sa ambiance bu méngoog sa bëgg rax ci dolli ay njëg yu yomb ba ku fi ñëw taamu lamp bu ko doy. Restaurant chez Katia. Venez passer un agréable moment en famille. Vous y vivrez des moments inoubliables, même en ces temps de Covid-19. Port de masque obligatoire. protégez-vous et protégez les autres. Huile j'adore le showroom.sn le showroom.sn le showroom.sn le showroom.sn acheter en ligne ñu livrer la ko comme flash sa commande lañ lay andil nga fay ñu cash acheter en ligne ñu livrer la ko comme flash doom ji tudde nan ko turu rëy turu ànd ak mbégte doom ji tudde nan ko promobile 60 ci turu ànd ak réseau 4 di waaw nag xanaa doom ji nag sunu doom sunu moomeel bis ni tey woo ma ci sama vous offre votre série Face cachée du réseau. ci dëkkandoo yi ma mësa am yow laa ci gën a hmm. masha allah mhm. noo def nag ça va alhamdulilah hmm, lii de man nga ko continuer non tey mooy continuer parce que coow li yëpp dama doon ragal xale yu góor yóbbu la yàlla tere man laa bëgg hmm.

Car la raison vous prêtez de nouvelles armes pour me faire plier sous votre emprise. Et l'absence même me semble plus présente que jamais à mon esprit. Notre souvenir me poursuit en tout lieu. Ils accompagnent mes rêves, mes lèvres, même préférant sans un mot, mon cœur palpite. Des larmes d'amour s'échappent de mes yeux et tombent sur mon cœur. Sur ce, je te dis, maman, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. li lu ko dàq. jàmm moom. kër gi yëpp weex laa maa drapeau jàmm nga woo. déggoo li ma la armoire sax dama koy def weex. ah na nga ko continuer de. moo loolu mooy sax. ah baax na boo ma naxul. yow xoolal yaa gën ci man yaa may suuxat yow rek laa nopp. ah jeex na coow li yëpp loolu la. Ah, je t'ai aimé je t'aime sama xel daal na. jeex na tàkk mi ngi noonu moo am sax jàmm rek yow laa bëgg. mission bi ma santoon d'après mes investigations Bliss moo nekk ci ginnaaw bi bàyyam génne àdduna ba léegi moom moo toog si bi. ah bon. boss on doit faire très attention Bliss elle est très te bu xamee ne yaa ngi nokki naxar bi la bàyyam tegoon yépp lu ko raw moo la nar a dal. Black gis nga wëyu banday baayam t'inquiète je saurai m'occuper d'elle bon où est-ce que tu en es de mes enfants Il toujours la police. Très dynamique. Mais le cas de Ousseinou est un peu flou. am naa élément yu ma yebal ci terrain bi bientôt naa la jox résultat yi leer nañ Black est-ce que xam nga ne jamono yi ñu toll yow kese laa ci kaw suuf donc par rapport à la mission que je t'ai confiée tu n'as pas le droit de faire une erreur est-ce que je me suis bien fait comprendre boss defal yëpp ci àdduna mission bi bu jare ma tele sama bakken dama koy def. très bien tu peux prendre congé. bébé ça va loolu la moo xew. dara. si dara kay man mosuma la fekkee nii ah sa kanam bi tey dafa triste da may problème. na yaa ngi fàttaliku sama meilleur ami bi ma la présenté woon école. nga sa commune boo xamante bi rek. nee naa la nga bàyyi jàmbur. waaye kooku dafa simple nee naa la sa commune boobu dafa xamante trop. kooku mooy man may moom. non bañu ma ko mais su ko bañ ma ko déggoo li ma la wax dafa nangu rek lan la lan mooy problème. dafa disparaître kenn xamul fu mu nekk. disparaître nu mu demee noonu moom disparaître. boo bëggee dégg-dëgg fu mu nekk moo fa bàyyi boppam de. Félix man ak moom ñoo ànd jàngi comme d'habitude du wàcc mu ñibbi ma ñibbi. waaw guddi gi papaam di ma woo di ma ko laaj xaw ma lu ma koy wax parce que xaw ma fu mu nekk. moo tax ma ne la fa mu ne moo fa bàyyi boppam. ndax bi ñibbi nga sa gaana moom lu ko tere mu dem gaana ñibbi woon a dugg. papa woo na ko laaj xaw lu ma koy que xaw fu mu nekk yaayam aussi woo na ma moom sax dana ba lu bari balaa say parents ci inquiété wu ngi ñi gisuma ko dégguma ko te papam woo na ma si bañ jotee si yaakaaroon ne si ma la nekk. xamoo fu mu nekk yow. tata bu wax dëgg rek jotee tonton Daouda sax woo na ma di ma ko laaj mais dama ko ne carrément que Félix ba ñu wàccee di h maak moom ñoo ànd comme d'habitude fi muy jàddee pour ñibbi man aussi ci laa continuer dugg sama kër. xam affaire yaa ngi bëgg a sérieux parce que yàgg na ba mu demee kenn xamul fu mu nekk. ah tata lu ma la ci wax leneen de. wax lu ma wóorul fili maag moom ñoo ànd comme d'habitude 18 heures mu dugg këram man aussi ma continuer ñibbi. loo ci xam teg ma kaa wax moo gën nga may nëbbu. tata loolu yëpp amu si su ma xamoon fu feli nekk man maa la koy njëkk wax. à part yow keneen kan lay àndal seen école. soxna soxna. wax ma loo may nëbb sunu benn xarit Malick kuy Malick ak fu dëkk copain Ferry la kon da ngeen di farantu tamit farantowuñu de kon lan la fu Félix nekk leer na ma ne xam nga ko xam nga laa lay nga def say enquête si seen entourage xam fan la feli nekk gis nga bu mu si dugalee say parents diñ ci gën a am problème leer na. d'accord fu feli nekk dinaa ko laajte ba gis ko wax la ko. mais sa naaw mu laaj ma parce que amul keneen ku muy man. moom ana copain bi yaa déggante woon nañ moom aussi man ak moom ñoo yem xamul fu mu nekk. moom kan ma yaayam. Zahra. xanaa mooy femme bi ko doon jël seen école noonu. ñoom dafa am lu ñu toogaale wala ndax mel nañu yor xaalis ñoom. yaayam am na xaalis papaam aussi DG la sans limite donc c'est normal que mu nekk enfant gâté. mu ngi noonu mooy li ma wax rek ñoom ñoo gàtte seen doom jël ko yàqu ko tey mi ngi nii conséquences yaa ngi nii ñoom ñoo koy subir. commencé waat nga. mais yow da xam ne moom moo yóbbu boppam wala. waaw li ma wax rek li ma wax du dañ booy sa commune dina ñëwaat te dina la wax ne la man maa ci lu ma neex. ah dëgg bi fii lu ne xew na fii loolu bu ko def problème. xam nga lan la sax wax bi hmm. parce que man moom mën nañu juboo si kër. waaw ah, léegi def kon da nga si biir ma am lu mën a tegal nga fàtte problème yi. la tête à ça. carrément moo naam mu tey am naa gan de. naka mu. nam la xanaa. wala lu bees. sonn. kon tey da ngeen noppale ci instant bii nii waxuma waxi génn dara dara soo ba tey ma ay nelaw. jamono ji fi mu toll nii. Hmm. boo liggéeyul du baax. Ah, te boo amee place da ko war a fonk. bu fekkee da ngay xëy di liggéey si moom boo absenté kenn du remarqué sa absence loolu moom yàlla nañu ci yàlla musal. mais yow da doxee naaj sax dem nga fële ba ñëw. bis dem naa fa. Mhm. loolu sax moo fi indi. Mhm. dem naa fa mu génne ma àddinaay robb. bul sonn bis ëppal na bébé. non ëppalul dafa xër ci boppam. mais rob bi yëpp yëpp rafet. du coup dama amoon sax embarras du choix. yow mu séeneen bi ñu génne la. àddinaay robb ñu génneel ma te yëpp rafet nag. mais ñaar rek laa jël. doy na la. Mm, waaw wala. dama bëggoon yu bari. bëgguma ñu catu nii. ah da nga daw cat nii. yow kon da ragal cat nii dañuy teg bët. Mhm. ñu ngi àdduna lu ci biir fekk yoruñu dara bébé. te man sax dama amee pression fi mu toll nii. waaw mi ngi noonu bàyyi ma def deux. xam nga dama taamu dem xewu jàmbur. di xool lu ma warul xool sama géem mi di wax lu mu warul wax. sañse yi lekk gi naan gi xam nga tamit nga solu ba mel ni princesse tamit te joxoon nit ñu lekk. non non bul wax loolu joxoon leen naan aussi. non non bul xalaat loolu loolu mooy sama préoccupation de instant yi. ah yàlla suturaal ñoo en plus suñu xew ñi dañuy lekk ba suur dañuy naan ba màndi ñun dañ koy sañse tëj gi ma sa loxo. lu xew yaa def sa verte nii di kase ak man. mais Zara Zara yow yow ban façon nit nga. lu ma defati. yow Zara xanaa yàlla dafa la yónni ci man personnellement yow yaay sama yónnante yow te on t'a envoyé sur terre pour me foutre en enfer wala lan. yaa ngi waxee xol de. ah mais est-ce ci ci kaw suuf. ci man waaw. fexe nga fexe fexe fexe pour jot si man jotuloo si léegi yow amatoo benn xam-xam parce que say pexe jeex na lenn moo la dese. mais Daouda de quoi tu parles. mais comment tu peux avoir le le début d'idée sax ba yónni sa xarit mu ñëw ba sama kër sama diggi saal ci sama jabar naan ko ma sama doom man firi mm-hmm. <laughs> ah. yéenay manquant Daouda yaa mbett yow doo yéen ay bàyyi Marija xale bu capable nga xam ni taxawaalu na ba perte kooku nga xam ni deful dara lu dul mën a fen. mais parce que yow ba tey lenn naa la ko xamal maa moom am nañ problème jël na numéro Zeyna sama téléphone nee na dina yàq sama àdduna kon loolu la fa wax. d' accord ma Zara sa téléphone moo raw coffre sa téléphone moo gën a sécuriser palais sa amoo angle mort amoo point faible virus du la dugg kenn mënul ci yow dara alors ne me raconte pa que sa copine bi ngay jiñ fenkat moo jël sa numéro Zeyna ci sa téléphone yow naka la xamee Zeyna bay jël numéro fan lay xamee numéro Zeyna. wax nga ko sama ah? xarit la du coup c'est normal mu xamal ma ba xam sama code téléphone. bi paatee defuma dara li may sikk yëpp bii defuma ko. seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. kon nangoo gëm nii. te yow copinu seytaane nga. te xam naa ne yàlla dina defar suñu xew. incha allah dañoo yàgg xoos su nag sonn. mu ngi noonu nag. en parlant de ça sax dajale woon naa fi benn somme sax. huit cent mille dama ne woon soo ñëwee dama ne ko jox nga yóbbaale ko pour xool lan nga soxla après nga complété ko ci. bébé yaa ngi soog commencé liggéey bu fàtte loolu. waaw je huit cent mille dafa bëri. lan moo bëri. dafa bëri xam nga la bëgg. waaw nga jox ma cinq cent mille. nga jël 300 bi nga denc ko est-ce que doy na la. bébé sëy du caaxaan de te du benn fan du ñaari fan. waaw ah, c'est de loolu tamit lu jar a suuraale. da ngay xalaat loolu aussi mais dina baax ko defar ba mu baax yàlla dinañu suturaat. mais dama laa bëggoon kii rek. déedéet <laughs> baax na. loolu laa lay defal de toute façon man xamoon naa ni bu ma la ko joxee sax doo ko jël. شغلنا لسه محل غير المسيا وضمن جنة بيبي شغلنا لسه محل زهرة est-ce man maa jur Feli. yow dimbali ma sañ nga maa laaj yaa jur ma fàttali la hôtel oo hôtel voyage oo voyage say ax ah, say siicu yu métti da nga koo fàtte. man xam nga ce que je vais comme nag sama xel mi ngi jiixi jaaxa à cause de toi dinaa ci am lu leer nañ di la science y a rien de plus exact man dinaa dem def sama test de paternité. xalaatoo ko pour man ma bàyyi la nga dem defi test de paternité di ma manquel man. di la manquel. Daouda est-ce que ça va yow Daouda comme xale dof yow man xaw ma la war a war a wax dañuy jàpp sa xel bi di ko fowee. yaakaar nga ni man maa yónni Maricha kon gëmoo ne maa moom dañoo jote muy vengé wu test paternité boobu ba yeboo nga wan ko ndax doo ko fi defee leer na. dinaa ko def maa jur sama doom mais je vais te prouver que man maa ko jur comme ay kayit moo la doy je vais te montrer les papiers qui vont le prouver. këyitu lan man damaa soxla nga def test nee naa la Maricha day fen day duul ku la bàyyi nga dem test. dinaa ko def léegi dinaa ko def comme day fen. ah mais c'est une occasion pour pour montrer que day fen bu fekkee leer na kon mu comme ça dinaa la commencé gëm wala di xalaat pour gëm la. Zara génnal sama oto Zara fatt nga ma takk nga ma mel ni cicatrice. ok doy na ça va naa la damay wàcc. wax génnal. test paternité nga bëgg. def ko dama la koy nangul pour wane ni ñëpp li ñuy wax amul leer na. yi ngay manqué waaw kii du Aïcha tey daal moom bii nga ma may. bañ nga mer na de. ana mami. kooku bu ma ko laaj mami xoolal kàjj dem na ci biir. xam nga tey lan mooy sama problème. tey sama yaram yëpp a tas foo laal day metti amul njariñ frotter hmm. mami jaxat. waaye su ko ëppul. parce que diggante bi xam rek dama nekkoon si ay yëngu-yëngu voyage diggante bi voilà. Ah, document yooyu ma ko dafa war a dem agence am. ah ok c'est le dossier euh, je te présente mon ami il s'appelle Maïssa. ah ah. merci. laisse-moi étudier ça après je te fais signe. Aïcha. yaa nekk nii. nga doon doxantu. waaw gis naa ne dama doon doxantu gis seen promobile te temps gis naa ne yéen a ngi si buzz bi xam nga moom buzz bi temps yi baa ngi fi. <laughs> je te rectifie mbégte mi. voilà te franchement loolu moom dama la si encouragé parce que c'est pas parce que dama fi nekk di fi liggéey moo tax mais ProMobile dafa nekk entreprise boo xamante ne ay jeunes sénégalais ñoo ko moom te jënd fi wala wut ci service c'est comme si da ngay participer si développement wu dëkk bi en quelque sorte mm-hmm. voilà ba puce bi dañ ko def njëg bu xéewale prix boo xamante ne c'est accessible à tout le monde muy 1000 francs te boo jëndee puce bi da ngay amaale 5000 puce bi 4G plus la mën nga si surfer partout ma yaale la aussi 750 MO. ah loolu neex na ba deeri. waaw loolu dafa neex. Ah, kay booy amatul loolu kay dañuy juglee nga jox ma benn. léegi xaaral ma woon la suñu offre bi comme ça après je te mets rapport ak sama ah, collègue bi. amul benn problème incha allah. sa sœur bi. Euh, kan nga. Chadida. Janou. Chadida rek sax day waaj a allah marié kan mooy Mario. Zalo mel. dëkk ma bu baax nii. Maria lay def booy bi. Jolida bu weex gi kanam bu weex gi. <laughs> ay man maa ngi jëm si mag. non day ñëw day ñëw incha allah. incha euh, xam naa d'ici quelques jours nag incha allah. quelques jours waaw quelques naa la ci invité. tu prends le risque. fi ma nekkoon maa fa ba tey de damay lekk-lekk gi naan naan <laughs> ah waaw baax na. léegi dama lay jox sama numéro promo bi. ok ok voilà c'est le 75. 75 812. Marija man la Zara dëkk bi lu mu fi bëgg dama koy am wala nga fàtte loolu hmm? nga danga dem ci espèce nit boobu Zeyna ne danga koy yàq sama der daaw de jorul fële maa la ko wax ok sa defet nga si jëlee du ger nga ma déclaré amul benn problème nañ ci dem ba mu neex foo mu wuyu la sama digganteeg Daouda tuuti nga pour yàqu ko Marie-Jeanne dangaa bëri wax bandi du bëri wax te pour affaire lu Feli moo gëmaat ni nank mooy bàyyi Feli leer na pour bañ la di la toroxal à chaque fois te nga toog hmm? gënu gis nga yow newoon naa la doo bandi doo kooba doo war a njàng contemporain maa la gën a vulgaire fuuf loo ragal a def yow man loolu laa ñeme def yow fi say limite yow man foofu laa tàmbale man daw ma saala yaay ndeer ci àddina est-ce que yaa ngi dégg man maa dem kër Zeyna man maa ko ko wax maa ko ne daaw da tàññaa juróom fëri lenn kay moo ma ump mooy kan mooy bàyyi fëli original te loolu bi su ma ko xamee mooy yow ci es à terre je t'achève mooy continuer di la ump bandi du bëri wax ay yaa dangay kébetu kébetu comme rajo bu yàqu kon yow wéroo yaa wérul yow da am toq dof ne woon naa la bandi boo bandi naa ko 1500 taxaw di la hmm. gën a waye xam nga bandi day nduroog dof yow danga nga bandi bañ lay jaawale ak ak ku am kayit faan man damaa plafonné al yéene laa bokkal booy def dangay noppi def wane preuve nit ñi xam sa bandi leer na maa la wax daaw de jurul fëli maa tay maa tay xola hmm? dangay dem de sa yëfu dof boo ko bàyyiwul leen de ma si jaaxal cas social nga te maa doon xetali danga may traité de jag ñaari jagay ànd parce que dangay aj ñu lay fay <laughs> ñu ngi koy dee koy lijjantee noonu rek. ndeysaan jaaykat moom day foog ne moroomam yëpp ay jaaykat lañ. Zara <laughs> newoon naa la doo bandi maa la gën a un milliard de fois maa la gëna bon dinaa la rey jamate la benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon tant que seddoo duma la bàyyi mën ngeen ñu jot ci numéro ñu leen di wan lumière du Sénégal illuminez votre intérieur gel hydroalcoolique à votre disposition mangez sainement respectons la distanciation et limitons les contacts. Laetitia, c'est votre bien-être avant tout. Huile j'adore double V double V double mooy suñu seet di nga mën commandé lu la neex jot ko si saa si soo yoree weccit accessoire pour téléphone bureautique climatiseur smartboard téléphone télévision ak ay ventilateur matériel électroménager loo xalaat yépp ci biir te dañ lay livrer fépp foo nekk jàppal yaa ngi ci biir wol 77 855 65 jot wol doom ji tudde nañ ko promobile 60 <laughs> ci tur wu ànd ak réseau 4G plus. waaw ah, loolu moom tuxu na di. waaw 4G doom ji nag sunu doom. waaw sunu moomeel. bis ni tey woo ma ci sama 75. AMD Corporate